mbégte di recevoir ci suñu plateau ki nga xam ne ni mën nañu jàpp ne du fi gan muy le leader du mouvement Claire Vision door Clédor Sène door ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum Bisaan euh, maa ngi lay nuyu di nuyu ñuy suivre euh, Sénégal 7 yëpp. Mhm. may nuyu it euh, Issa mi nga xam ne ni moo nekk ci régie bi maanaam ci waañ wi bu image yi leere it moom la Clédor Sène tey ñoo yendu. waaw euh, parce que tey euh, dama de génne leen tuuti ci studio yi. Mhm. parce que da ciy baax léeg-léeg euh, bu ñu dem ci terrain bi woon téléspectateurs yi yenn réalités yi nga xam ne mënoo ko am in vitro. Mhm. Mhm. yenn réalité yi nga xam ne ni dafa jëm ci coowum suuf bi lëmbee Sénégal. donc nit dina sànq ñu ngi koy wax en off dina juddoo dakaar yaroo dakaar mais du mës a teg tànkam ci yenn ci ay bërëb. tey ànd nañ fa yow. mais am na luñ fa gis li nga xam ne ni mën nañ jàpp ne lu jéggi dayo la mën nga revenir tuuti ci bërëb yooyu ñu teg suñu tànk tey waaw c'est vrai que dafa concerner suuf euh, dans un premier temps mm -hmm. beneen yoon dina concerner yeneen secteur d'activité mm -hmm. parce que pourquoi suuf parce que dañu nekk ci contexte boo xam ne mhm. nit ñi dañu am émoi maanaam dañu am lu leen yéem mhm. ci li ñu découvrir ci mbuurkat bi fa président demee mhm. président Bassirou Diomaye xam naa ni loolu normalul ay hectares yu ñuy caxat-caxatee seddoo ko ñi am ay plusieurs parcelles mhm. et cetera alors que population ayant droit yi amuñu mu gis ni loolu dafa choqué Sénégalais yi mhm. alors su ma xamee li ma xam ma xam une ville dans la ville d'autant d'hectares que Mbour 4 parce que li ñu visité tey ay centaines d'hectares en réalité parce qu'on n'a même pas pu tout visiter d'immeubles nga xam ne ñu ñu tabax la ba pare ça n'a rien à voir ak terrain vague terrain nu boo xam ne ay ñax nga fay gis je parle de Mbourkat donc emprise u aéroport bi zone de crash u aéroport bi Léopold Sédar Senghor Léopold Sédar Senghor boo gisee ci mapping bi nii dara nekk foo woon mm-hmm. mais léegi Euh, non fii mbuurkat la sax. fii mbuurkat la fii dara newu fi. Mhm. fii c'est des terrains vides. Mhm. mais ñun li ñu visité tey li ñu leen woon tey. Mhm. mais c'est des hectares et des hectares d'immeubles le R plus huit R plus dix R plus douze yu yu imposant yoo xam ne. Euh, autorisation de construire yi ci ëpp mille vingt trois kon loolu euh, projeté woon naa image yi une fois. mais dafay baax nit ñi ñëw au contact de la réalité parce que réalité bi moo gën a jéggi dayoo encore image yi ngay gis gis ngeen ni ngeen sonne ci def tour bi rek ça nous a pris euh, plus d'une heure de temps te defuñu yëpp parce que am na yeneen côté yoo xam ni doo fa mën sax àgg mais dafa doon doy rek ñu am un aperçu de li ñu visité tey li ñu visité nag li ci grave mooy d'abord c'est la zone de crash de l'aéroport qui a été morcelée et construite parce que bout de piste boo décoller da nga war a tiim loo xam ni kenn dëkku fa une zone non aedificandi ba noppi aboutir directement géej nga xam ni bu avion bi di am problème mooy bout de piste bi nekk na le wàccel tuuti euh, euh, réalisateur bi na wàcc tuuti no non non na na na dézoomer na dézoomer tuuti encore un peu voilà encore un peu gis nga géej gi par rapport ak bout piste bi baax na baax na par rapport ak bout de piste bi. Mhm. diggante boobu c'est habité ça devait pas l'être. loolu lépp ay kër la. loolu lépp ay kër la léegi bu zoomee foofu foofu c'est c'est une zone de crash. Mhm. boo xam ne c'est maintenant une ville dans la ville. c'est des hectares et des hectares lu tuuti li ngeen di gis noonu. Mhm. donc mën na ci zoomé waat euh, maintenant côté côté bi nekk côté bi nekk ci géej gi. côté donc lii yëpp ak li wër li ceinture aéroport bi. lépp lañu lañu lañu lañu lañu lañu tabax. donc diggante bout de piste bi ak géej gi. dara waru fa woon nekk. tout ce parterre la euh, euh, nit waru fa woon dëkk. donc lii la ñu joxe. et ça mais en en en insécurité. l'aéroport de Dakar bi nga xam ni moom moo fi des. te tey on a vu AIBD. am na benn incident. absolument parce que un avion a raté son décollage. te am na sax impact est-ce que dafa raté son décollage. wala dafa jóg daanuwaat. Euh, enquêtes yi moo koy déterminer parce que euh, les services de sécurité ñu ngi ci déterminer cause ratage boobu mm-hmm. mais bu amul lu ni yàmbalang ci kanamam mm-hmm. ci ay kër lay dal bu doon fii la mm-hmm. ci ay bâtiment lay dal bu jógoon tamit ci ay bâtiment lay daanu lii dalay woon tout toute l'importance d'une zone de crash pour en cas de problème je crois que Euh, Damboj expliqué na ko ci bi ñu demee ci terrain bi parce que moom laa bàyyi woon mu wax ak Sénégalais yi parce que moom vraiment am na facilité de communication avec les Sénégalais donc expliqué na njëriñu zone de crash boobu kon tey jii aéroport bu ñu demee ba non non fii c'est c'est le côté militaire euh, bu ñu demee ba euh, nu mu tuddati kii ëmb ko nu mu tuddati kër yi ëmb ko c'est assez grave donc euh, loolu euh, mooy premier aspect bi mhm. mais beneen aspect bi tamit mooy comment se fait que benn cité ñëpp amandoo moyens yëkkati en même temps ay gros yow gis nga ko ah ñëpp amandoo en même temps ay moyens yëkkati ay immeubles mhm. R plus huit R plus dix R plus sept avec sous-sol ba noppi gis ngeen mur bi ñu construit foofu sur des kilomètres mhm. boo xam ni moom moo nekk benn benn genre paravent Euh, buy protéger des yeux mhm. ñi nga xam ne ñoom ñooy tabax foofu bu ñu demee nag ba seen tabax sortie de terre ba génn mhm. ba pare ñu daaneel mur boobu dem defaat mur quelques hectares plus loin continuer beneen tranche di ko tabax mhm. donc lii mooy le lotissement administratif bi nekk ci zone boobu différent du lotissement de la CDC bi nga xam ne kooku titre foncier la boo xam ne kenn tabaxu gu fa dara lu ñu morcelé la jaay ko kenn tabaxagu fa dara mais leneen li ci des yëpp li ñu tabax ce sont les lotissements administratifs yi nga xam ne ay politiciens lañ ko jox ak ay nit ñu jege nguur te tur yi bu génnee du bett kenn donc ñoom kese kese kese kese ñoo ko séddoo ñoo fu dëkk te ñoom ñoo ko jaay ñeneen tamit léegi ñeneen ñi ko jaay ñoo xam ne ay individu lañu comme man comme yow ñu gis suuf buy jaay wetu aéroport ñu jënd soixante quinze millions quatre vingt dix millions cent millions tabax suñu kër ñooñu taxuñu ñuy wax parce que ñooñu en général sax ñooy am tabax yu ndaw yi mais ñi nga xam ne ñooy def seen fondation avec sous-sol di def dix étages yow gis nga benn paquet de de quatre immeubles yoo xam ni nee naa la benn propriétaire la am quatre immeubles benn propriétaire la am donc loolu day wane rek ni ay borom doole la ñu jox foofu mais képp koo xam ne jël nga fa suuf su lew yow waroo am benn inquiétude bu fekkee ni say propre moyen nga ko tabax mais képp koo xam ni dañu def immeuble sa tour boo xam ne amoo moyen tabax ko wala nga tabax immeuble boo xam ne munoo justifier foo jëlee moyen yi war nañ la enquête ba leeral loolu donc euh, euh, euh, open press bi dinañu faral di ko def dañ leen faral di invité mm-hmm. hors des studios mm-hmm. di ñaan euh, rédaction itam mm-hmm. accompagner euh, seen ay éléments de moyens parce que on a dû se serrer les pour mën a terminer la mission euh, mais suñ ko mënul woon xëy na li ñu def yëpp tey duñ ko woon mën a def bëgguma dugg ci détails yi mais quand je dis que les rédactions doivent accompagner leurs équipes de moyens Euh, ça concerne tout le monde parce que loolu dafay yombal liggéey bi déplacement restauration connexion sax day jeex xam nga am na kenn ku ñu àndaloon koo xam ni connexion am dafa jeex kenn koo xam ni batterie am dafa jeex amuñu woon power bank il faut il faut il faut un accompagnement Absolument. donc parce que terrain bi mën na gën a sore tey c'est Dakar mhm. demain ça peut être hors de Dakar te dafay baax parce que moi j'ai beaucoup de choses à de Dakar dafay baax nit ñi di mën a gis euh, euh, ce sur le terrain. donc le problème foncier au Sénégal. problème la bi ñu jógee ci euh, zone aéroport bi. Euh, waxuma sax côté sécurité aéronautique. Ah. Hmm. mais ñu des ci zone aéroport bi ah. parce que euh, hmm. ci say wax toujours day revenir hmm. ñëpp dafa mel ni dañoo amandoo tabaxandoo lan nga trouver lu suspect ci loolu non li suspect daaw li njëkk suspect mooy c'est les pontes de l'ancien régime ñoom ñoom moom foofu d'abord on a les noms nag non nooy moom on procède on procède on on a les noms. non donc loolu mooy mooy mooy premier problème deuxième problème il y a une uniformisation. dans les constructions. dafa mel ni benn société. moo sampandoo ay immeubles ñu jógandoo alors que c'est des individus. lan moo ci suspect. mais gisoo fenn pancarte wala tableau bu ñu wax. maître d'œuvre tel architecte tel. autorisation de construire numéro temps titre foncier numéro temps bureau de contrôle tel te bu fekkee ni euh, da ngay def ay R plus dix tu soumis à des rigueurs de l'urbanisme parce que ça touche à la sécurité publique dix étages yoo xam ni ay logements lay doon ak souterrain ak ak sous-sol sous-sol donc war na am toutes les garanties Euh, de normes requises moo tax ñu ñu leen di exiger un bureau de contrôle nga xam ni mooy contrôler les calculs de béton armé les ferayages l'occupation du sol et tout ça euh, les structures ndax sa ça tient et tout ndax mën na tenir charge yi ñu koy teg ak yooyu yëpp y a un bureau de contrôle qui vérifie tout ça ci immeuble yi donc loolu gisoo ko fenn ñu affiché ko c'est pas suspect ça c'est même anormal parce que loolu code de l'urbanisme mayewu ko boo tabax immeuble da ngay teg tableau wax kan mooy tabax kan lay tabaxal maître d'œuvre et maître d'ouvrage bureau de contrôle autorisation de construire et cetera donc loolu yëpp dafa doon loo xam ni dañ ko war a xam projet de construction R plus X. dañ ko ciy def loolu moom normal donc euh, kenn laa gis mu def ko fa. bon je vais lâcher son nom. parce que ci reportage bi nee naa y a une ancienne euh, candidate à l'élection présidentielle mooy tabax immeuble bi immeuble boobu ma leen woonoon. en fait c'est Rose Wardini. moom elle a mis son nom. elle a mis euh, la photo de son immeuble. sur une bâche. ba noppi mu ngi tabax. loolu noonu la ñëpp waroon a def mais moom elle la construit sur l'ancienne piste la piste numéro 4 04 ci la ci la ci la tabax mais au moins def na loolu donc loolu ñëpp loolu la ñu waroon def pour mu doon affaire bu donc li ci suspect loolu bokk na ci uniformisation construction yi bokk na ci ñëpp amandoo xaalis ñëpp yëkkatindoo ñëpp tolloo presque même niveau achèvement gros œuvre wala finition donc loolu je crois que c'est plus que suspect sur des hectares et des hectares et des hectares ñëpp tabaxandoo c'est des hectares qu'on a visité Mbissane ci diirub un an waaw diggante 2023 ak léegi 2024 te terrain yooyu yàgg nañ fi te kenn tabaxu ko mhm. c'est-à-dire bu ñu ñu waxantee dëgg rek il y avait l'objectif horizon 2035 mhm. ñun dégg ngeen ñu doon plaider horizon 2035 ñoom foog nañ ni foogoon nañ ni mhm. mënoon nañ fi maintenir ba deux mille trente cinq mhm. suñu xamoon ni nguur gi da leen di échappe mhm. terrain yi dañ koy jaay dem seen yoon duñ ko tabax ay immeuble parce que ñoom tabax nañ ci ah am na ci nag xam naa ci un ancien directeur du du boo xam ne tabax bu modeste la tabax moom R plus 2 la tabax xam nga mais am na ñoo xam ne immeuble la ñu tabax te gars yi ñu ngi woote rek parce que on a ko le cocotier